الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نيغي سانت يالله سبحانه وتعالى دي گم دي seede امول كن كوني جامو ni jaamu جامو گدي جارين نياكا جامو گدي لور كودول بروم بي سبحانه ñuy ñaanal njéggal ak kawe sunub yonent muhammad ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi di ci boole waa këram ak i saxaabaam ridwanullahi taala alayhim ak képp ku jaar ci seen yoon ba saa di taxaw yàlla nañ ci borom bi boole mbokk jullit maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal yàlla subhaanahu wa taala ngalawaay bu ñu faatu loolu ñu nekk ay dëgg-dëgg jullit yàlla na ko yàlla defal borom bi subhaanahu wa nan xam ne farataal na ci ñun benn ponk ci juróomi ponki lislaam yi ponk boobu mooy ban mooy ponk aji makka ci ku ko mën yàlla wax na ko ci alquraanul karim mu ni yàlla farataal na ci yéen ngeen aji màkka benn yoon ci seen dund ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ينتبه صلى الله عليه وسلم وحني الإسلام بدنكو تنك جرومي بانك جرومي البا موي أجي مكة كوكو من بنيون خم جنني ولا نيو نيب نيو بوكو خمني نيو بري بري تاي اي جوني جوني تاي سنغالي ñi ngi waajal pour aji wajal ñi ngi waajal pour joxe ponk boobu nga xam ne benn ponk la ci ponk lislaam yi man nga ni sax ñi war dem moom ñëpp xam nañ leen parce que presque tëj nañ léegi buntu boobu li des kay mooy xaar sa waxtu dem nga dem kon bari na ay góor yu war a dem ay jigéen ñu war dem lijjanti nan lan war a lijjanti ci seen xaalis xëy na tàggoo nan ñan war a tàggu waaye dafa am yu bëri yoo xam ne laaj na ñu xam ko préparer ko njëkk ñuy dem yooyu nag xëy na benn xutba mënu koo lijjanti waaye ci suñ xutba bi dinañ ci junj yenn nga xam ni képp koo xam ne am nga yéene dem aji màkk na nga bàyyi xel ni kat war naa waajal sama bopp ci mbir yii njëkk may dem loolu mooy tax su ma demee duma am jafe-jafe bi ci njëkk mooy ki nga xam ne am na yéene aj na jéem a fexe ba jàngaat attey aj aj dafa am ay atte nga jéem a jàng attey aj xam lan mooy farataya xam lan mooy façon aj yi ndax am na ñetti façon aj ban nga ci yéenee def am na ifraat am na tamattu am na xiraan nga jéem a jàng ni ñuy defe booba na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon nam ko jàngale woon ndax moo ne xudu anni manasikakum yooyu yépp nga jàng ko mën ngaa dem ci ku koy toog ci moom mu jàngal la ko bu dee mag la am na nun ko ko mën a jàngale noo xam ne mbir mi dina simple ci moom te dina dugg ci moom kooku xëy na doo ñëw sax di ko Eh, tàqaleel ay farataaki sunnaaki mustahabaataki waajabaat mën na koo jaxase waaye bu boobaa su demee ci koo xam ne am na pédagogie dina ko won ni muy aje mu xam ni xam ne kat su demee nii lay def fii la war a njëkkee lii la war a def su ci jógee dina def nangam dina def nangam dina def nangam ba yépp leer ci moom idan awalu shay mooy maarifatu ahkaamil xaj loolu moom di nga gis koo xam ni dafay aji lépp nag dina ko sonne mën naa jóge fii ba Tàmbaa ngir tàggoo waaye du sonne benn yoon pour mën a xam leen mooy àtte aji kon nit ki war na góor góorgóorlu yeesaa su fekkee ni kat xamal na leen la ci biir aj gi kat am na ci foo xam ne boo ca aggee di nga wax lii wala nga wax lii jéem a la fexe ba jàng loolu nga mën ko waaye saa càggante am ci yeesaa ngis ku dem ba war a am juróom-ñaar fukki at ñëw naan la jàngal ma qul huwa allahu ahad ndax dégg naa sunu tawaafee ba pare bu ñu demee ca maqaam Ibrahim dañ ko faa war a jàng koo xam ne dem nga juróom-ñaar fukki at qul huwa allahu ahad moo ko kon nañu gën a góorgóorlu ci xam at tey aji loolu mooy bi ci njëkk ñaareel ba mooy nan gën a salaat sunu yéene ixlaasu niya fi adaa hadihi alfaridati alazima nañuy yeesalaat yéene yi déw ma ngir puukare wu déw ma ngir wane ni yow kat man dem naa te demoo déw ma ngir su ma ñëwee ñu may woowe alaaji wala su may ñëw ñu may woowe ajarat te ku ma ko woowewul ma ni kii daf ma iñaane kii daf ma soxore kii dafa nàngam dafa déedéet jàppal ne aj bi ngay aji mi ngi mel ne julli jot nga dem julli def farata bi ni julli di jot ñun la tisbaar jot na nga dem julli sa farata noonu la ajju jote nga dem def ko mu jeex tak kilahuma ruknun min arkanil islam kon nan selal yene ba nga xamne daraay kanen kudul yàlla du ca ne ndax bu amé rek yàlla neena bëgguma yàlla wana ci hadith qudsi bo xamne rawahu al imam muslim muni ne ana agna shurakaai an ash shirk من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه nee na moom mooy ki gën a doylu luñ koy booleeg leneen lu dul moom bépp jëf sooy jëfal yàlla di ca laawaale kaneen yàlla nee na bëggatuma kon na yàlla rek tax dëgg naa nag senegaal am na ñoo xam ne bu ñu jugee màkk soo leen waxul ajaratu ñu mere la mën nañ la koo bañ a wax waaye dañ la koy jàppee loolu nag nit ki su ko àggee na jàpp ni kat moom ak sellalam des na beneen bi ci des. mooy nanu jéem a tàggatu ci muñ ak jéggale ak jéllale atadarrubu ala sabr wala afwu wa tasaamux fi ma baynana parce que fa ñu jëm yaa ngi fay dajal ñoo xam ni bokkoo leen yar bokkoo leen comportement bokkoo leen jikko te boo moytul yéenay bokk benn néeg yéenay bokk benn hôtel yéenay bokk benn oto bu ngeen di dem ak di ñëw bu boobaa war ngaa xam ni nag nekkatoo sa biir kër nekkatoo sa biir néeg ba nga xam ni yow doo nga ca doon fanaan néeg bi am na ñeneen ñoo ko bokkal am na koo xam ni moom mën na dugg ci toilette bi bu génnee xamul toppatoo xamul raxas xamul dara mën na jóg ak ay dàllam yu tooy jéggat sa lal dem mën na nek yow waxtu wi nga sonne mu tal lampe bi wala kanen ñëw diko set seet jóge ci beneen hôtel mu nek fa di waxtaan ba xaju guddi yoy yëpp bo tagatul sa bop ci as sabr tagat sa bop ci al akhlaq al fadila ay jikko yu yu bax bu boba bo moytul ak nga waron def lépp xulo lay doon kon il faut que nga tàmbali legi xamni kat ah suma ma demee am na loo xam ni mën na ma faa gaar kon nag war naa jéem a tarbiyaat sama bopp ba yooyu yëpp duma ci am benn problème parce que ku nekk ci xajj fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj la yàlla wax la yàlla wax subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat buroo fa nekk di xuloo wala di def leneen lu dul noonu moo xam ci wax la wala ci jëf loo xam ne dëppoowul ak lislaam beneen bi ci des te ci lay yemale xutba bi muy lu am solo mooy comme xam nga ni dangay aji daawoo entraîner tàmbali léegi di entraîner waxuma nag nga sol sa daal ni damay dawe xam nga ko am soixante-dix ans soixante-cinq soixante-quinze ans boo mel xëy na daawul daw bu bëggee daw dina metti waaye solo sa daal la di dox del dox lu sori gis nga bis boo ko deful ba dem ba dugg ci aj gi bu boobaa dinga nga mere ku la deful dara laa budda min at-tadarrubi bi alal mashi parce que dafa nekk foo waxtu woo boo xam ni képp ko fa mën a dem muy milliardaire bi muy président muy ku mënti doon noo mën def ñu doxloo ko te saa nga dox lu sore sore sore sore sore misaal rek tey boo jugee woon Arafat dem Muzdalifa am mën nga am chance am oto te ci bëri sax da ngay dugg oto mais gis nga boo jugee Muzdalifa war a dem Minan oto sax doo ko fa gis far nga war kilometer dox walanya ak lu tegal wala ñaari Buboba wala ñetti kilomètre bu boobaa soo tàmmulu woon sa bopp dox ñépp dinañ la fa ba nga war a tawaaf xoolal ñaari yoon nga war koo tawaaf kaaba gi te da ngaa war dox nga daw safa ak marwa juróom ñaari yoon jóge fële dem ba marwa jóge waat marwa dem ba safa def ko juróom ñaari yoon te da ngay dox kon tàggat tàmbalil di tagga sa pulegi. legi so julle fajar aha ngay dox bu no. noonu ki nga mom ne moom am na kàttan kooku te yàgg du am problème motax liñi bëgg waxtu wi nga tollo ci sa ndaw nga dem aji ben goor da wax nan kula kula kula togn nga bëgg fayu kilifa gu togn nga bëgg fayu ta xamoo noy bayil ba mu magat nga jokk bi ya bis bu bu bo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 كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لا إله إلا